danga am ay jafe-jafe ci sa wàllu dundu jàngoro rab ak cat ba ci sax tëju ci sa wàllu wërsëg lii yëpp mën na la gàllankoor ba tax loo yaakaar rek mu tas waaye nag bul xàddi benn yoon ndax xam-xam moom fa mu nekkoon ba tey jugu fa dawal gaaw seeti sëriñ Mohamed Jaxate yàlla may na ko te xam-xamam kenn naatable wu ñi am jafe-jafe néew kattan ci wàllu sëy sëriñ Mohamed Jaxate andi na leen ci ay garab yu baax te wóor gaaw lool ci paj mi ngir jokkoo ak moom wooteel ci numéro téléphone bi 78 201 82 44 ak sëriñ Mohamed Jaxate ñëpp nangu nañ xam-xamam ci listixaar ak ñaan ku internautes yi ni ngeen ko gisee ci image yi tey madame Diouf la ñu am Pendo macha allah ni nu ko waxee sànq rek ñu koy ñaanal sëy bi barke yàlla def ci ndam ñu am njaboot gu barke nuyu naa la sama xarit waaw maa ngi lay fay bu baax a baax asalaamaaleykum man ah, ah, waa waa Penda sax maa leen woo mais waa Bour Gueweul fooleen leen jaar moo ma jaaxal. nga ne Bour Gueweul TV moo lëmbe dëkk bi yow xam nga loolu. moo ma jaaxal man damaa jékki-jékki gis ay Bour Gueweul sama biir kër. nga ne image bu baax booy gis ci Bour Gueweul TV nga koy gis. waaw baax réew mi. jërëjëf kon. macha allah yàlla dogal. nga am borom kër tey ñu lay takk nga am mbégte ak kontaante macha allah sa xarit yi nga ànd kook ñoom nii. waaw dëgg la nag dañuy sant yàlla rek julli ci yonent bi ah, sant suñu ñaari waajur ah, di sant ah, yàlla bu baax a baax yàlla laay wax yàlla laay wax yàlla di sant yàlla bu wér a wér waaw commencé ci yàlla mu jeexee ci yàlla waaw. néegu sëy nga duggaat ci macha allah ñuy ñaan nga yàgg ci. waaw moo tax ma ne yàlla moo tax ma commencé ci yàlla jeexalee ko ci yàlla te xam ni yàlla rek mooy borom jaam ñi te yàlla mooy xool lu ko neex mu di ko def du dëgg nit bëgg na dara te yàlla nanguwul du am nit dugg ci dara yàlla nanguwul du am bu suñ borom dogalee ni sëy bi dafay am dafay am kon suñ borom a ko dogal moo tax ma ne yàlla commencé ci yàlla jeexale ci yàlla maa ngi koy sant bu wér a wér am mbégte lool nag ah, am na mbégte daal ba fu mbégte mun a yem parce que nag tey gis naa sax sama sama sama sang bi ñëw na sax si sama xew Serigne Babacar si parce que buñ ma mayee photo sëñ Babacar bu mag si sama si sama jouru tàkk damay kontaan donc damay sant yàlla bu wér a wér julli ci Moustapha bu baax a baax sant sama jëkkër nag tubarkalla ndax ki romb bundu kër yëpp ne la yow la kooku kooku yow la rek nga ko mën a wax waaw. ñu am ci yaakaar macha allah ndax buñ lay seetaan sa ay émission li ngay wax conseil yi ngay jox ñiy sëy macha allah loolu tax na ñu bari biñ ko yëgee dañ lay ñaanal di la encouragé am ci yaakaar. loolu tax na bokk na ci li tax moom am jëkkër. ndeysaan parce que nag dëggu bokk na ci li tax moom jëkkër peut-être bëri fayda gi ñuy wax bokk na ci li tax moom jëkkër. parce que sama jëkkër xam naa yooyu la gis mu xool ko seet ko seetaat ko xam ne lii ma wax nii lii moo ne ci man looloo tax donc lu nit di def rek na ko gëm parce que tele bi ñëppay seetaan mm-hmm. lu nit di wax it na ko gëm mm-hmm. àdduna ñëppay seetaan donc man li ma bëgg rek mooy comme li ma wax toujours yedd yëre ma ko gën bu ma kenn yedd nañ ma ñaanal bu ma kenn yedd nañ ma ñaanal ndax kenn du gis nit ku baax mu di la defal loo bëgg mm-hmm. di la raayal di di kaf yow di retaan ak yow bu may la jàmm la salaam nga ne danga ko fay bàyyi te dem boo demee foo jëm hmm. góor gaynde la danga koy jet mu ni nemm nga fëxal ko mu dem hmm. te sama jëkkër ji ji gaynde la te saalaali Mouhamed laa commencé waalaali Mouhamed dinaa ko jat ndax mu toog lii la yàlla dogal. ñi naan Pendo dafa tàng. tàng moom xam na ne tàng moom sax xam na ko na man kii laa policier màkk fomp kaaba rek laa fi nekkee <laughs> ña nga loola nee na policier màkk nga dóoroon kaw moo mel noonu waaye voilà sama habillage moo mel noonu c'est que réew mi ñuy dund la réew mi moo metti rek mais man tànguma damay bañ nag ku ma yëpp tubarkal masala waaw damay bañ ñun sax laay wax dañuy bañ ku ñu yëpp fi nga nii koo ci laaloon léegi nii ñëppay booy ñiy toog fi yëpp mm. mais nag ay borom xol yu rafet lañu moo tax suñu borom boole ñu ñuy ànd ma leen di gërëm nag bu baax a baax c'est pas évident parce que lii nii kenn yëgu ko dama ko nëpp nëppal ba dal ci kaw nit ñi mais ñii mënuñoo ñàkk ci sama parce que ñoo xam ne booy nëbbatu ba nëbbatu ñi yor sa caabi kër xam nga ñooñu ko nëbbatootoo parce que dafay leen ñii nii ñii ngeen gis fii yëpp ñu sol yëre yu marron yi man nag ñoom ñooy nekk 24 heures sur 24 donc looloo tax ma yemale ko ci ñii te xam ne mun a ñàkk ndax ñii laa am voilà ñii samay xarit lañu xarit au vrai sens léeg ma ànd kii léeg-léeg ma ànd ak kee léeg ma ànd kii léeg-léeg ma ànd ak kii léeg-léeg ma ñoom ñëpp léeg ma ànd ñoom yaa ngi dégg est-ce dégg ñun ñëpp samay xarit lañu kenn ku nekk mën naa la wax ci yenn circonstance lay ànd moom kii bu ambiance amee ñuy dem xew ami caam moom lay àndal taasu yu garaaw taasu yu léegi ami ay taasu yi la ne yàq kii nii <laughs> kii su ay problème amee. <laughs> dañ koy woo mu ñëw. mooy régler katu problème yi. mooy ñanga kii mooy ki nga xam ne booy nëbb dara bu ko yëgee sa àddina yàqu na non non dara non non bu leen ko ko nëbb wax leen ko ko ci digg bi kii nag moom moo naan non non taxaw leen nag ma wax leen <laughs> kii mooy intellectuel bi kii moom tubaab la kii moom tubaarkaal la mm-hmm. suñu intellectuel bi kii moom tubaab la day sëy moom tam ñaareel la xatu jëkkëram kii nag kumba kii moom tubaarkaal la cancer important carte important c'est Kumba Maar. yi waa gars gis ngeen kii yéen. waaw yi ñëw leen. ñaareel lañ waa Cambérène man de Cambérène xaw ma woon ne ngi fi. ñaareel de xale yaa ngi ni taxaw pare nañ xale yaa ngi tax pare nañ. mais d'accord bambara bango naaru fanta damba internet yi dinañ laajte fu waa ji jaar ndax ñi doon yoot bari na waaw tas na këpp naa nag yalwaanu yu bari nag maa ngi jéggalu man xam naa li ma wax nga ne. waaw alaaji Malick laa la wax këpp naa yelwaan yu bari. waaw man mi la laaj kii xam naa li ma. gaaw nag xam nga xam nga xam nga meles la lan la ñuy xam nga daa gaaw daa gaaw rek ma gaaw waaw. gars yi doon naan dukk la yomb yomb la. waa ji meles. waa ji dafa ni meles. waa kay fu laa ko tax a jóg te xale góor war a bàyyi yooyu nag est xam nga après nga bàyyi fa jaan màtt la ba dem nga topp ca watit bay doon foogoo ko. nan tàllal ba caaka njaay bu fekkee ñu dem marmiya du dëgg mais mariage la naar lañ koy dañuy waxtaan dañuy émission lii mi ngi mel mi ngi mel théâtre théâtre la faa ngay man mi ngi mel théâtre caat bi amagul caat <laughs> laaj léegi Demba seen diggante yéen ñaar macha allah mu am seede yu am solo yu mu def ci yow ah Demba mu mm, waaw mu seede lu rafet wax lu rafet ci yow seen diggante macha allah. ah demaloo rek la mun a wax ñoo bokk ndey ak baay di mu topp ci man. moom dafa demoon sax tubaarkàlla demoon ci baaba maal bi waaye dafa bàyyi lépp lu mu jàppoon nag ñëwal ma. dafa bàyyi lépp lu mu jàppoon ñëwal ma donc Demba sama rakk la. et je l'aime beaucoup. la man daal dama ni bu ma kenn yedd. nañ ma ñaanal. ndax yedd yërëm ko gën. caane nan rek te yéene man du dëgg moo gën a yedde bëgguma ma yedd nan ma ñaanal incha allah waaw nañ rek waaw dañu mën a yedde te man bëggul fu mu ne tollootuma fu may yedde fu ko yedd nan ma ñaanal rek ah nan ma ñaanal waaw bëgg naa sama jëkkër bëgg naa samay mbokki jëkkër sama goro sama sama sama sama euh, du ma wax euh. sama rakk laay wax ah yow itam dama laa nuroo kuy nekk wax naa ne waxoon naa leen kër yi kër ga dama faa ragal man dong <laughs> loo bëgg dee koy la waay waxoon nga ko de loo bëgg dee koy fooye. nga kër ga da nga ragal waxoon nga bëggoo di nekk toujours da ngay bëgg muy dem fee di ñëw fii dégg naa la. rawatina sax moom nekk fi damay damay dem baa mu ñëw ah, en en timis sëre ñëw ñu wax li damay ñaan yàlla gis nga yàlla. yàlla rek ay yàlla li tax sànq mooy la yàlla rekk ay yàlla yàlla rek yàlla loo bëgg rek na nekk sa xol nga di ko wax chaque jour loolu na yàlla rek mooy yàlla ah yàlla loo koy ñaan rek na doon lu gën ci yow ak li nga bëgg soo ko waxee soo ko ñaan la koy may li ma doon ñaan loolu la ma yàlla may donc may ñaan yàlla yàlla ma yàlla musal ci cet si ak balaa kasara gàtt fan ak déegu ñaaw pexem noon noon bu am crédit ak noonu bu xamul li muy wax. bëggoon noonu bu am crédit. ak toog ci booru wi fi te xam code ba damay ragal. day a dem waaw. nan ma bàyyi ak sama samay mbokki jëkkër ñu bàyyi ma ak sama sama sama rakk jooju nag sama doom la sax nan nee na sama doom la waaw waaw waaw jërë la. sama wujju man. waaw la. daba jërë jërë la jërë <laughs> jërë baa ngi. wayal ko. cey dafa sekk ay. danga am ay jafe-jafe ci sa wàllu dundu jàngoro rab ak cat ba ci sax tëju ci sa wàllu wërsëg. lii yëpp mën na la gàllankoor ba tax loo yaakaar rek mu tas. waaye nag bul xàddi benn yoon ndax xam-xam moom fa mu nekkoon ba tey jugu fa. dawal gaaw seeti Serigne Mohamed jaxate yàlla may na ko te xam-xamam kenn naatable wu. ñi am jafe-jafe néew kattan ci wàllu sëy. Serigne Mohamed Diakhaté andi na leen ci ay garab yu baax te wóor. gaaw lool ci paj mi. ngir jokkoo ak moom wooteel ci numéro téléphone bii. 78 201 82 44. ak Serigne Mohamed Diakhaté ñëpp nangu nañ xam ci listixaar ak ñaan